وكيد لكل الكائدين بهلكتي كذاك إلى العالم عداوة لكل عدو يبتغي الدهر صولتي وطعن لطعان وقدح لقارئ ومن حيل المختار من أي حيلة شماتة الشمات وكسح لكاشئ يا يقنا بالدهر كل بليتي أصول بك الأعداء كذا قرناؤنا وإياك أرجو من ولاية إبتي ومن قرباء يا إلهي يا سيدي لك الحمد مما ليس تحصي قدرتي ولا عده عد عوائد فضلك عميم ومن عوائد إحدى سترتي وألواني المنيتين سبحانك مولانا إلهي التي لنرتدي منع المغارب كله وقايتنا التجاني من كل شدتي وكما اشتكي عند إلهي زيارة زواياه لكن العنان بقبضتي هناك وحده وإلا الآيات مرارة عيشتي وعدت وأنت الوعد عندك صادق إجابة داع بابتئرار وبالتي إلهي يضعف الوالدين ذنوبهم كذلك يا رحمن كل المشيخة كذلك إخواني لا يرجمة فمن ينتمي ربي إلى خير ملتي وأقصى في الله ثم صلابي على خير خلق الله من غير ثنيتي مع الآل والأصحاب ನಮ್ಮ ಊರು ಮಂಗಲನಾಯಕ ನಾಯಕ ಸಭಾಪತಿ ಸಭಾಪತಿ الرسول وقد جعلنا لكم أيضا Jagannath Ahmadu Mamadu Mansoor ga ca gannaaw ba Ahmadu Mamadu Mamadu Mansoor ga ca gannaaw ba Ahmadu Mamadu Mamadu Mamadu Mamadu Mansoor ga ca gannaaw ba Mamadu Mamadu Mansoor ga ca gannaaw ba way mama Abdullah ari da bax de su ko jam baayam sëñ Maodo si yàlla fi yàgg te ànd ak moom lañu tuddee maamam bu nekk ci wax waxi baayam sëñ Maodo si yal na fi yàgg te ànd ak wér ak nooram maamam sëñ Maodo waaw yal na fi yàgg bu nekk ci wax waxi baayam Maodo si yal na fi binaa'i suraat wal adwaaw ku sopp yaa rasuulallahi defal ni alxaq fii هو أساس وكيف لا والله جل جلال البناء أما حديث في العقول فمشاع والعلم والحكم الغوى للماء هو سبعة الفرقان نفعت قسه محسنه سراته ورواه جرت الفصاحة من ينابي من دوحه وتفجر الإنسان في بحره ساعين أرب الحياة كسب يا رسول الله يدفني لما قالوا يا رسول الله استر هناك كما في زمان

sirif nin ko waxee ci ndey ak ci baay Cheikh Thierno nee na lali la loola yàgg ci réew mi ci këri diine yu ñu xàmmee ko ci yemu ci mu séq képp kuy nit ku baax dëkk ci réew mi lu baax ñu ko war njëkk ci tànt bi bariwul moo tax ma bëggoon ñu jox ko. dégg leen rek. mu ubbee jataay bi ñaan ñu doog a dugg ci waxtaan bi. kon Chérif Dieng nga joxe ñaan ñu doog a dugg ci waxtaan. sama ay bokk bopp yoo xam ni bu ci kanamee incha allah dina leen jox kàddu ndax bis bi dañ cee am cër ñaari yoon bu njëkk bi. mooy ñoo papa aan ñoo bokk fu ñuy liggéeyee ñaareel bi ci des ñu am kóllëre seen diggante ak pap aan muy El Hadj Thierno ak El Hadj Mamadou Mbaye Garmi mbokk yi nag dañoo bëggoon wax ji wàññeeku tuuti ñu dugg ci li nga xam ni moo nu fi tax a ñëw tey te ku nekk bàyyi sa soxla jóge fu ne ma yëkkati kàddu ci turu oustaz Pape Hann mu ni mu ngi gërëm ñépp di leen sant di leen sant ci coono bi ngeen jànkoon teel ba egsi fii ci bërëb bi ci Almadies di leen sant ci sopp gi ngeen ko sopp ngir Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di leen gërëm bu baax ci nii ngeen ñëwee tey mu ànd ak yéene joo xam ni ku ci nekk boo sañoon li war ci bis bi yépp yow yaa koy def tàkkusaanu seydina muhammad sallallahu alayhi wa day nekk tàkkusaanu lislaam te lislaam kuy jullit ci nga bokk jullit yi amul xaaj ji ak seen waaye Chérif Dieng dafa wax léegi ni oustaz Pape Hann dafa am fu mu bokk bokk boobu mu fa bokk nag terewul këru diine gu mu wàcc fu ne ñu jox ko fa cër teral ko fa ngir Seydina Mohamed waaye it jox ko cër bi nga xam ni moom la yellool ci nit ñu baax ñi nga xam ni moom ci wax ju baax ji muy wax muy nuyu moom oustaz Pape Hann di dóori nuyoom ziyaaram jëme ci sëñ Babacar Sy Mansour xalif général de Tidiane bi nga xam ni bu dee sag lu taalibe di wut ci sëriñam am na ko ci moom ndax bariwul walla bokk mësuñu koo gis taalibe bu nekk ci plateau télévision di waxtaan ab xalif général woote loolu daal tegtale na ni oustaz Pape Hann mi ci njabootam la bokk moo tax kàddoom gu njëkk daf koy jëmale ci sëñ Babacar Sy Mansour di ko ñaanal yàlla yàlla wéral ko te sàmm ko di ci teg ki nga xam ni mooy sëriñ Mountakha Mbacké xalif général des Mourides mi nga xam ni bu màggal jotee moom ak njabootam ñu gën caa ràññee soxna Bali Muntaxa yàlla na yàlla wéral ko te sàmm ko seeni teraanga du dakk diirub ñuy nekk ca màggal ba keroog ñu fay jóge moom du moom rekk bokk na ca Oustaz Assane Seck mi ngi nii toog bokk na ca El Hadj li Ñang mi ngi ci kaw bu ci kanamee léegi dinaa wax kan moo ko fi yebal ba mu ñëw teewal ko ginnaaw digganteem kóllëreem ak ki nga xam ne mooy oustaz Pape Hann kon oustaz Pape Hann ngi nuyu xalif généraux yëpp waaye nee na mi ngi beral nuyoo ak cant ak ngërëm lu amul fu mu yem ñu may leen ñu toog ndax dañuy jaar ci kanamu télévision yi defe naa mën na leen a jaarale ci ginnaaw ndax dañu nekk en direct ci Malikia TV nekk en direct ci Asfiya yi nekk ñu en direct ci ñu Médoune mi nga xam ni dara du ko romb ci manifestation yu mag yi am ci réew mi Oustaz Pape Hann mi ngi gërëm bu baax Serigne Maodo da baax mi nga xam ni bokk na bu egsee fii ginnaaw yàlla ak yonent ba ak way juram ak i bokkam Serigne Maodo si am na taxawaay bu mag bu mu am ci carrière u Pape ak soxnaam soxna yaa sa fisi bu sunu wayjur sëñ Habib si Malick soxna yaa yàlla na ko yàlla wéral te sàmm ko moom njabootam ak njabootu maam Seydi Hadji Malick gépp mbokk yi bu nu oustaz Pape Hann mayee tuuti rekk bu dalalee ganam ba pare ñu waxtaan ci bokk gi nga xam ni ñoo fi ñëw ndax oustaz Pape Hann ñi nga xam ni ñi mooy famiyam bi mu bokk ka fay xalifa tey jii teew ci jataay bi mooy sëriñ Ousmane Ka di xalifa sëriñ Jabel Ka di kóllëre gu yàgg ak waa Tiwaawan sëriñ Ousmane di am taxawaay bu mag ci Pape Hann ak famille bi mu bokk yépp sëriñ Modou Xaban Aan mooy taawu baayu papa Aan mi ngi ci kaw taawu baay mooy baay oustaz Pape Aan ni nan ko waxal sëriñ Modou Xaban moomuy taawu baayam ñu ko fépp fu baayam doon taxaw war ko faa féete moom féete na ko fa mu koy gërëm di ko sant ci taxawaay bi di ko gërëm di ko sant ci saa su ne lu alaaji Pape nekk mu nekk ca lu mu dugg mu dugg ca ba tey jii mu nekk ci kaw kon bu sa mbokk yi dikkee sa taawu baay ñëw tudd leen dafay yàlla dafay rafet sa diggante ak moom commissaire Kabir Ka moom it mi ngi fi di kenn ci oustaz Pape Hann Ka moom it mi ngi fi famille Bilalika ak Samba Yuga ñoom ñépp ñi ngi fi Adja ay Daka mi ngi fi mu ngi koy nuyu bu baax di ko sant ku mën a teral Pape la waaye ku mën a teral kuy bokk ak wala kuy ànd ak Papa Hann teral na ba tàyyi nit ci yaag Pape bokk fu ngeen di liggéeyee sama mbokk yi toog ñi ngi naan naa wax ca kaw ku dem ba Mermoz ba fekk ko fa wala nga ànd ak moom ànd ak pap dem fekk ko fa nga xam ni am ay bokk yu baax baax na kon ñu ngi koy nuyu bu baax di ko sant di ko ñaanal yàlla fanu gudd ak wen di nuyu waa Almadies 2 di leen nuyu bu baax di leen sant di jiital ci nuyoo bi madam Mbay madame Mbay ak waa Almadina dinaa ñëw ci ñeneen ñi ci des danoo am taxawaay boo xam ni tey jii bu ay bokki Pape Hann ñëwee fekk fi jataay bu rafet bii jekke nii ci jigéen yu maarifin wa maghanimin xudamaau cheikhuna tijaani samam babacar si nee na cheikh yaa raaxilan mutasaabiqa rukubaani cheikh tidiane naxwal jinaani rawxi wa rayxaani samam babacar nee na addil ulukata min asirin alaqatin qaasil xawaajisi muddatal asmaani samam babacar nee na addil bayaana لأهلها متسايفا بالوافدين وجملة السكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب السماحة والفضيلة الشيوخ الكرام أصحاب المعالي يشرفني جدا أن أحضر هنا اليوم تلبية لدعوة الكريم وجه إلي أخي العزيز العالم الورع الذي يعرف القاسي والداني ألا وهو أستاذ بابآن دام زله يا أستاذ بابآن لماذا li annahu gayurun yuhibbu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa yumin bih law qasamnaa xubbahu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala nnaas la jamiuhum gushaaqun la it ñu bokk lislaam bi mënoon naa doon sabab sama teewaay ci jotaay bi waaye loolu taxuma fee teew bokk gi ñu bokk Cheikhuna Tijaani mënoon naa tax bu ma la xamul sax ma ñëw ronu si tànt bi waaye loolu indiwuma fi waxtaane gi ngay waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci télé bi sopp gi nga ko sopp mënoon naa doon sabab ma teew ci jotaay bi te xaw ma la waaye loolu indiwuma fi bokk gi nga bokk kër maam Cheikh Seydil Hadji Malick te may seen goro loolu rek waroon naa mën a tax ma ñëw ronu tànt bi waaye loolu indiwuma fi oustaz li ma fi indi mooy sa jikko ju rafet li ma fi indi mooy sa yar li ma fi indi mooy sa mbaax li ma fi indi oustaz mooy sa ngor bi ñuy mujj New York ca gàmmu Serigne Sid Ahmed man ak yow ñoo bokk oto waaye sa mbaax ak sa yar tax na nga yëkkati ay kàddu ne ma dénk ma loolu daf ma marqué ànd nañ New York Columbus Cincinnati ma gën a xam kan mooy oustaz Pape Hann saa yu ma xewlee une semaine la ko yëg avant wallahi da ciy def vidéo du maanaam bu noppee teew ci jotaay bi loolu kuy dund lislaam rekk ko mën maa ngi ñëw nag ànd ak waa miroir de lislaam muy sa njaboot keroog bi ñuy monter selil yu bare bari ba tey soxna Awa Ba Male cellule Petit Mbaaw yow bokk nga ci ko ci ñu ko monte ma naw la nag ci sa jikko damay faral di wax ne nit yi jamono ñeent lañuy nawee nit te benn bu ci nekk yàlla jox na ko nit ba noppi rëq ndiggam muy juddu di xam-xam di alal di nguur benn bu ci nekk yàlla jox na ko nit ba noppi rëq ndigam kon ñeent yi bu àndut ak jikko ji rafet àndut ak yar mook zéro ñoo yam oustaz Pape An ku baax nga ku tedd nga Cheikh Anta man na ma cee seede Cheikh Anta Samb maa ngi koy nuyu du benn du ñaar ñu toog ca Fès ca rawdu Cheikh Seydi Ahmed Tijani wala ca Daarul Bayda di waxtaan sa mbaax Pape An rek ngay jaxasool ci taalibe yi doo dégg mu jëw nit doo dégg mu critiquer doo dégg mu wax dara lu safaanu ci doomu aadama ñun dund nañ kook moom kooku nag sañ nañoo wax ne ku baax la kon oustaz Pape Hann na yàlla dolli sa sutura fa nga teg sa tànk foofu la bu ko teggi yaa ngi rafetal tey keroog bi ma waa Jamra seet seet ci waawan dama leen wax ne dafa am ay oustaz yu waxtaan ci télé yi ak ay waxkat ci biir télé yeeg rajo yi dafay jaadu ñu dajale xaalis bu fekkee xaalis a tax ñuy wax ñu jox leen ñu noppi bu fekkee buzz a tax ñu xool naka lañ leen di créer les buzz te waxuñu ñu wutal leen buzz ñu noppi ndax li ñu yàq ci diine ji golo sax yàq ko ci àll li ñu yàq ci mbokk mi golo yàq ko ci àll kon nag dafa jot ñu waxtaan. bara dox sëñ Moulay mi nga xam ni. moom moo war a waxtaane tey guddi gi ndax moo fi teewal sëñ Babacar Sy Mansour xalif général des Tidianes sëriñ Maodo Sy Dabax sëñ Babacar Sy Abdou ak mbooloom njabootu maam seet yaay maam gépp kon jox ñu jox Pape Hann kàddu gi kon ñu jox Pape Hann mbokk yi asalaamaaleykum asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi xam naa ñàkk bañ a jël kàddu bu mun a nekk. danaa ko jéem sëñ Mamour ndax xol bu sedd maa ngi ñaan ñi fi teew ñaanal ñi teew dellu ak ñi bëggoonu ñëw te ñëwunu yàlla na leen Seydina Muhammad teralal boppam bés bii ki ko moom mooy rasulullahi bés bii ki nuy gërëm di ko sant di ko njukkal mooy Seydina Muhammad waaye ca carte ya boo xoolee maa ngi wax delloo njukkal Seydina Muhammad waaye jar jëfal seex Seydil Hadji Malick Maodo moomu man man laa wax de moo tax ba ma xam rasulullahi Maodo moo tax ba nu xàmmee Seydina Muhammad kon kooku faaw nu jar jëfal ko ndax ni mu sottee xottee sunuy xol jëmbat ci bëgg ci yonent bi aleyhi mbokk yi maa ngi ñaanal sama bàyyi alaaji saaliwu aan yal na yàlla yokk leeram yal na yàlla kaweel aljanaam moo nàmpatal ci kër Seydil Hadji Malick nàmpatal ma ci bëgg yonent bi maa ngi ñaan yàlla kaweel aljanaam 2018 la ziyaara ji rasulullah yi 2019 mu gaañu góor googu amunu fayam amunu fayu sunu ndey Adja Fatou Ka moo rek baaba Bilal ak sàmb yu ko mu baax mi nga xam ni bi mu nekkee sama kër baay bu fa sëyee woon ni mu neexee ni ko neexee tey jotaay bii du am diwa nga nee di dem yaay moo koy liggéey diw la ñuy xaar yaay moo koy liggéey am soxla génne faj yaay moo koy liggéey koñ ajaa Faatu maa ngi lay ñaanal gudd fan maa ngi lay ñaanal wér sama bàyyi ma waxoon ni ma loolu sa fit may dugg sama bàyyi ma ko wax sama bàyyi ma ni woon loo bëgg sama ngërëm ma ne ko waaw mu ni ma am nga ko saa bàyyi ni ma maa ngi sa kanam maa ngi sa ginnaaw saa bàyyee ni ma di nga toog ba sant yàlla saa bàyyee ma ko wax te nitu yàlla la sama ndey it wax ma loolu kon ñoom ñaar awma seen fay di gërëm sama famille yaay di gërëm sama famille baay di gërëm samay dëkkandoo di gërëm samay xarit bàyyiwuma kenn su ma nuyoo sama ndijaay Ousmane Ka xalifa bi mu yóbbaale géew rakkam yu tedd yi mu àndal yépp su ma nuyoo Adja ay Ka mu yóbbaale géew jigéenu bilaalik sàmb yuga yi mu àndal yépp ak sama compagne yu baax yi su ma sañoon nag dinaan tudd kenn par kenn waaye du fi xaj madame mbay Adja Ndeye Ndiaye di sunu chef de quartier maa ngi lay ñaanal gudd fan maa ngi lay ñaanal wér bëgg nga ma ba mu jeex takk takk takk takk te moom mii sama jarbaata ndax sunu ñaari maama bokk ndey ak baay ñu daje fii ci gox bi waaye waaye madame madame Mbaye lu muy def man mii la ci jiital fonk ma du dugg ci lenn lu mu waxtaanul ak man quartier bii di almadi jaral ko lu ne kon maa ngi lay ñaanal madame Mbaye ñaanal sa boroom kër ak sa njaboot waaye ñaanal waa sopp nabi yi mooy ñooy nduróole ñee ñooy waa soppe Seydina Muhammad dëkk ci gox bii ñu xam ni man mii sama dund rasulaay dong la le 28 mai bi passé fii nu taxaw di conférence conférence bu toll nii lañu fi organiser ñoom ñii keroog maa jàpp dat ba maa def conférence bi alaji sàmm mbuub mu baax mii moo ko way teraanga bu ne ñu ma koy defal su ma xewleeg su ma xewlewul coono gune ñu koy daj ci man kon almadi awma seen fay dama tukki dem tournée Europe ci mois de mars bii passé soxna Xadi Bajaan mu baax bii nga xam ne bi may tabax sama kër fii fondement laa commencé rek ndajeek moom ñu nuyoo ma gis ko muy jaaj mu baax bi ñu réunion sama ginnaaw ni ma mu woo ma whatsapp la ma woo ne ma waxtaan nañu ba noppi yaay sunu imaamu ratib waa mbokk yi ba nuy réunion su ma ko fekkee woon sax ñu ni am kersa ci mën a tax ñu def ma ko waaye ñu sopp ma ngir rasulullah yàlla bu leen gis dara lu leen naqari ci man ñu baax ngeen jumaa ji te la njëkk loolu terrain bii ngeen di gis terrain bii tabaski bi nu fi njëkk a jullee waa kàrt bi yépp ni ma yaa nuy jiite korite ñëw ma jiite tabaski bii paase li tax jiitewuma mooy dem dellu màkka covid bi jeex waaye lu ñu ciy def man mii la ñuy woo kon quartier bii awma seen fay Cees ga ma juddoo yaroo Cees màggee Cees Cité Lamine ga ma àddina juddoo fa yaroo fa màggee fa gën a mag ca digg koñ ba man mii maa koy waxtaanee koñ ba ma juddoo laa wax de fi ma doon fawee conférence ya ñuy def ca dikk koñ ba gàmm ga gën a mag ca koñ ba man Pape Hann maa koy waxtaanee ñoom est-ce jéppi nañu ma kon man man maa war a gërëm yonent man dama war a sant rasulullahi moom yonent man moom laay waxal moom mu wax ak yàlla ndax yàlla boo ko dëkkmalee te jaaroo ci rasulullahi yàlla du la wuyu ah muy porte bi moom rasulullahi maa ngi lay wax ni dara jàkk garat boo mën a am dëkk mal yàlla toog tàmbalee naafila ba suba ngay wird ba suba di wax ak yàlla di fëgg te tuddoo rasulullahi yàlla du la wuyu déedéet mooy bunt bi te mooy ku sakkan ki te moom du jeex du xew yi démb Maodo mii sama rakk la ñoo bokk bàyyi maxtaar aan mii moo topp ci man ñu bokk ndey ak bàyyi maxtaar mii kii bu dëkk mu bu depaaroon di am fu muy dem su ma ne ko wàññeeku du ci teg baat te sama tofo la de li ma ko magee bari ndax mbëggeel ak cofeel gu mu am ci man ma màggete topp ci moom man muy samay mag di sama taawu baay bii bu baax bii xol bu rafet kii moo ko am sëñ Modou Xaban mii di sama taawu baay waaye di sunu xarit ñun ñëpp la tàmbalee ca moom ba mu lay Abdul Aziz mii mu jéggane àddina ci góor gi ñoom ñépp lu ma bëgg ci ñoom yàlla defal na ma ko diw baax na ndax mbokk yaa ko wax dama jox Maodo mille francs démb ni ko Haj jëndal ma sept kilo dugub mille francs maa ngi ànd ak mbay jéey mbay daa defe ni dix laa ko jox billaahi mille laa ko jox ne ko jëndal ma 7 kilo dugub Maodo woo ma ne ma jënd nañu benn kilo ma ne ko lu tax ñu jënd benn kilo mun ma kilo dugub di jar 700 ma ne ko billahi damaa defe ni 100 francs lay jar bi man laaj sama soxna yaa ngi ceeb xaw ma lu kilo ceeb di jar mbaa xam nga ni liitaru essence xaw ma lu muy jar billahi kilo mburu xaw ma lu muy jar ñaata. man saaku ceeb boo nee ma lu muy jar xaw ma ko billaahi xaw ma ñaata lay jar liitaru diwlin xaw ma ñaata lay jar su may borom borom boutique bi joxal soxna si ceeb ak ak diwlin jox keneen ki ceeb ak diwlin dama naa ko lépp lépp ñaata la mu ni ma taama jox ko ba ma dalee jënd essence ak léegi liitaru essence xaw ma lu muy jar xam nga lu taxa rasulullahi ka mujizatun ajazat kullal wara ah kii mooy bu Thiès la ka mujizatun ajazat kullal wara maram kii aw ma لك معجزات أعجزت كل الورى madame Guèye Alaaji Abdul Aziz Pape Ali Guèye mi génn àddina maa ngi koy ñaanal yàlla yokku leeram ana soxnaam awoom teraanga boo xalaat mi ma koy defal laka mujisaat délégation bu mag bi yëpp ana la ñëwal ndax xam borom këram mbëggee la cofeel gu mu amoon ci man لك معجزات أعجزت كل الورى gërëmal nga ma léegi soxna Yuma Aïcha Ba kooku aw ma fayam billaahi لك معجزات أعجزت كل الورى kan moo fi gën a waa nañu bëgg Rasulullah لك معجزات أعجزت كل الورى Serigne Fata Sarr maa ngi lay ñaanal yal na yàlla guddal sa fan laka mujizaatun ajabat moo gën a bëgg yeneen waaye mbokk yi bu ñu tàntoon ma gestu gisuma benn njabootu Seydil xaji Malick ñu war maa xoolaat laka mujizaatun ajabat kullal wara sëriñ Moulay sëriñ Habib Seydil Hadji Malick laka mujizaatun أعجزت كل الورى ينم سيدي محمد المصطفى تيرنو الحاج عبد سيد الحاج مالي لك معجزات أعجزت كل الورى وين دي جاي ماغي لي واخ سيرن شيخ نجاي بوسرا مي سيرن شيخ عمر نجاي مي bu waykat mënee way ma mën koo firi su ma xoolee arab bu ma mësul gis mën koo firi ñoom ñii ñoo ma jàngal ca daara ja Busra laka mujisaatun ajadat kullal wara yeneen yeneen sëriñ Cheikh maa ngi leen di ñaanal na ma leen daan ñaanale ba ngeen may jàngal muy bëgg alxaaji Jóob yal na yàlla fay leen kan moo bëgg yonent bi laka mujisaatun ajadat kullal wara waaye gërëm sëriñ góor a sekk mu baax mii bàyyi ko ba ci ne ba laka mujizaatu ajazat waraa yeneen sëriñ aadama sekk moom itam bàyyi ba ci ne ba ànd ak sëriñ góor a ngir sama jëmm ji yal yàlla fay leen laka mujizaatu ajazat kullal waraa sama baay alaaji Mansour Mbay tukkee tax ñëwul billaahi لك موجبات أعجبت كل الورى مقل سيدنا محمد لك معجزات أعجزت كل الورى سيرين أحمد بمي نيو نينتي أطولة أندل غير سمو بسبي لك معجبات أعجزت كل الورى سيرين أحمد دفني ما باب مني كواو مني ما بول تيت بول جاخلة بول رجل ku la laal laal ma maa ngi sa kanam maa ngi sa ginnaaw laka mujizaatun ajazat kullal wara kon maa ngi ñaanal sëriñ Ahma Laxat yal na yàlla yokk ko dëgëral alaka mujizaatun ajazat kullal wara sëriñ Ahma yow su ma la waxul merci it war nga xam ni merci. laka mujizaatun ajazat kullal wara. Saliou Samb mi daa am jot tey la samedi bi. laka mujizaatun ajazat kullal wara yonen. Serigne Banna ngi ni bàyyi ko ba ndar. laka mujizaatun sëñ Talla ak sëñ Xaadi. ajazat kullal wara. bàyyi seen yitte yëpp ñëw sama bés bii kontaan naa. لك معجزاتنا جذت كل الورى Chérif Adramé Mbacke maa ngi lay ñaanal yàlla bu la kenn ëppale sa kër maam Cheikh na Cheikh Sall لك معجزات أعجزت كل الورى cinq minutes xarit Abdul Aziz Ndiaye moo ko yóbbu makkatal mukarram laka mujisaatun ajazat kullal wara waaye papa Abdul Aziz doomam ñëw na njabootam gépp ñëw na ngañ nag ngañ bàyyi nag moom su ma duggee biir famille Moussa Ale maam As ñoom ñépp xam nañ sama diggante ngañ mii laka mujizaatun ajazat kullal wara ngañ maa ngi lay ñaanal yàlla bu la kenn ëppale ci rasul laka mujizaatun ajazat kullal wara mbay jéey Haj Malick Dieng coono gi ngeen di def ngir man bàyyi naa leen ak Seydil Haaji Malick yéen mu fayal ma leen laka mujizaatun ajazat kullal wara jërëjëf sallallahu alayhi wa sallam laka mujizaatun ajizan kullal wara yàlla ngay waxtaan ak rasulullahi laka mujizaatun ajizan kullal wara yàlla nee na ko ñi la bëgg ak ñi la bëggul duñu yem laka mujizaatun ajizat kullal wara yàlla ngay waxtaan ak rasulullahi laka mujizaatun ajizat kullal wara yàlla nee na ko maa la yónni ku la bëgg dem aljanna laka mujizaatun ajizat kullal wara waayadan yàlla ngay waxtaan ak rasulullahi laka mujizaatun ajizat kullal wara yàlla nee na ko naa la siiwal yow Seydina Muhammad laka mujizaatun ajizat kullal wara yàlla ngay waxtaan ak rasulullahi laka mujizaatun ajizat kullal wara yàlla nee na ko ëllëg naa la jox ba nga ne doy laka mujizaatun ajizat kullal wara wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda mu'jizaatun ajazat kullal waraa. yàlla nee na ko naa la siiwal yow Seydina Muhammad. ay mu'jizaatun yoo xam ni kullal waraa. wa rafa'naa laka zikraka. laka mu'jizaatun ajazat kullal waraa. waa am nañu sopp rasulullah laka mu'jizaatun ajazat kullal waraa waaye Serigne Cheikh maa ngi gërëm sama soxna yi jaar naa sama soxna mag la yaa Aïda maa ngi nuyu soxna si Mali maa ngi nuyu sama soxna yi si man soxna yu baax laa samay soxna rafet nañu baax na yaru nañu te nag fa tabaarakallah si xam nga li ma wax sama soxna yi baax na mu baax na mu dalal nañu sama xel Pa man damay yéeg di wàcc da nga yéeg wàcc maam As. ah bàyyi boo nekkee ci mboolooy yi ñoo bokk kër. baax fi ñoom ñaar ñoo bokk kër. kii moo nekk rez de kii nekk premier. man ma nekk deuxième. Hmm. est-ce que est-ce que. damay yéeg di wàcc. que est que. waaye ñu dalal sama xel. Malick Dieng. ndax li may toog bariwul. Dieng. bu ma génnee mbaa tukki sama doom yi di ma woonaam papa kër gaa ngi toj lu ma xam lu may def ak lu may wax waaye ñoom ñaar ñii lu ñu ñaar benn la lu ma am bëgg nañu lu ma amul muñ muñ nañu maa ngi leen di ñaanal seen njaboot yal yàlla barkeel ko moom daal nii ngeen mel yàlla bu ngeen changé jërëjëf waaye mbokk yi jërëjëf seex ne moo ko def ci soxna yi waaye mbokk yi maa ngi gërëm président Makhtar Ndiaye sëriñ Moulay da waaw dëgg la <laughs> loolu yaa ko kii moom ah waaw bés bii nag bésu waa sopp na bi la te doon na war a gàmmu ah dañu war a gàmm dañu war a gàmm maa ngi ñaan bu kenn jub ku bëgg Seydina Muhammad bul dem sama xarit booy booy gendar <laughs> mbër la woon booy gendar maa ngi koy nuyu di ko ñaanal yal na yàlla yokk ko dëgëral ci daraje rasulullahi jërëjëf Seck jërëjëf Seck kontaan nañu baax damay jël kàddu gi ñu jox sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Ndiaye bu noppee sëriñ Abdou xam naa yaa yor yëf waaye maa ngi ñaan kilifa yi yoroon jotaay bi yépp kenn ku ci nekk bëgg naa tudd sa tur waa waajal burdu yépp ñëw nañu ñoom itam sëriñ xalifa Niang kenn ku ci ne war naa tudd sa tur sargal la ndokkeel la gërëm la waaye nag mbir mi jeexagul